ngi leen di nuyu fii ci Thiès quartier Concorde ci biir kër Cheikh Mouhamadul Mourtala ibnu Serigne Saliou Mbacké di tey jii ci bisub gàmm di bisu màggal juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, ñu xam ne ni ko Cheikh Saliou Mbacké ibnu Ahmadou Khadim daan waxee nee na këram yëpp ay gàmmukaay lañ daaraam yëpp ay gàmmukaay lañ fii tamit di màkkaanu kër Cheikh kër Cheikh Mouhamadul Mourtala ibnu Serigne da di gàmmukaay boo xam ne ni yàgg nañ fee màggal guddik jonantu bi alayhi salaatu wasalaam fii nag mu nekk nii Cheikh Mouhamadul Mourtada moom moo nekk noonu suñu ginnaaw génn ñi di mbooloo mi ñëw di ko ziyaare si mu nekk ay daara yu jóge fépp ci àddina ñu jóge fépp ci biir euh, Sénégal moom nag mu koy tàmm màggale ni nga xam ne ni moom la ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul santaane ni nga xam ne moom la ko waajuram wu tedd woowu di Cheikh Mouha Saliou Mbacke xam Xaadim daan defee muy euh, tant boo xam ne ni den nañ ci dégg xasida yooyu nga xam ne nii mooy naaru gaaru Cheikh Ahmadou Bamba yi muy jazbul xulóob muy euh, mawaay bu naafi muy muxaadimaat am da ak barsam nga xam ne noonu lañ koy fanaanee jàng ba suba ci mu am tamit ay commission yoo xam ne ñoo constitué daayira yi nga xam ne ni muy doxee màggalu Touba rek noonu lay doxee ci gàmmu gi nga xam ne dina am restauration bu doy waaw ñam yu bëri dinañ ko defar pour euh, gan yi dinañ defar ay collation lépp loo xam ne daal dinañ ko def màggalu Touba rek lu ko raw dina am fii ci Thiès ci màkkaanu fii kii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mourtala ibnu Serigne Saliou Mbacké ñu koy ñaanal yàlla yàlla gën a yokku ay fanam yàlla gën a wéral yaramam yàlla gën a dëgëral ay cëram ba nga xam ne naal yi mu naalal paayam bi tedd ba naal yi mu naalal euh, maamam ju tedd ji Cheikh Ahmadou Bamba mu dali lu yee lu sut njortam loolu mooy euh, li nga xam ne nii moom lañ fi fekk tey jii ci ci Thiès en attendant muy génn di dem ci tante bi nga xam ne nii foofu ñuy euh, màggalee guddi gi foofu lay nekk ak ñun ba fajar bu fajaree mu jiite ñu ñu daal di delluwaat ci kër ya ba deween incha allahu rabbi di ko ñaanal mu gën fee yàgg gën fee wër barke Serigne Saliou Mbacké yeeslu di addi jaa ngi nii nag ban lay sot jaa ngi noonu njaboot gaa ngi nii wéradi yaa ngi nii Mbàkke lépp mën nga bokk ko saafaraal saafaraal ma lépp ban lay sot jërëjëf Mbàkke yaaram jërëjëf ban lay na mu naa la lool nag màggal gi gisewuñu ndax wéradi yi rek waaye sama xel ñëpp a ngi ci yow ban lay maa ngi tane bu baax ba ma jàkkaarloo yow laa wér ma jàkkaarloo yow nag balay sa damay wér jërëjëf Mbacke jërëjëf balay sa njaboot gaa ngi nii ñëpp a ngi nii Mbacke min balay sa jërëjëf Mbacke Happy is in the عن كل ما أفسد هل تنخلق الخشى من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جلغ خوادم قد ناخ القلب من درار بجاه أبدل من لله غال جاء مدى الخلق علي بالصفا ديان وبالنبي فارق للعصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاي ما العلا وخدلت أشكر شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا rabbil wara wa sa'saqa xurura fa qultu naziman li dil muqaddama musalliyan bi ala man qadama wasalli li xaqu min alhaqi almubin li qadama baana wa ma lisa yabin alamani ما كان حبل الخلق man kaana lii bi karamin wa tilxi def leen nii ñu màggal sayduna muhammad nahaar ilal baytil haram li ka yasira sanida mustadrajun min al anam lil jahli bil muasami wallahu jalla faala bi jaysi ma faala بجاي وجعل كيدهما في اليامح فالكل من سوي البتر متى بأسواع الغجر جعلها رعلها رب البصر جعلها رب البصر كالحمل لنعمه إلى الجنات ما ليس ينبغي salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax man la ndongali Pathé Diakhaté waaw comme ni ngeen ko xamee euh, ñu ngi fii ci gàmb gi fii ci Thiès gàmmu goo xam ni ki nga xam ni moo ko taxawal mooy sëñ Mourtada Mbacke moom Serigne Saliou suñu sang boobee ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla guddal fanam suñu borom yàlla wéral ko li mu bëgg a liggéeyal maamam ja Cheikh Ahmadou Bamba liggéeyal ko waa bu Serigne Saliou yàlla na ko eggaleeg sagoom barkeb Serigne Saliou comme ni ngeen ko xamee fii nag moom barab la boo xam ne rek day mel ni xawees na koo miin barab la boo xam ni gan yi nga xam ni ñooy gani sëriñ bi fii la ñuy xewloo liggéey boobu ñoo ko yor comme nañ ko yoree ca màggal ga waaw ko yoree ca màggal ga nañ ko yoree fii ci Thiès ñu ngi koy doxal ànd koog mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi waaw boo xoolee guddi gi mi ngi bëgg a sori waaye ñu ngi ci diine bi muy buffet boo xam ni daanaka day dem ba ba fajar waaw ndax gàmmu ga ña ngi koy dundal ci anam yu ne boo demee ca ña nga xam ne ñoo yor xaside ya yor yor alxuraan ja yor tudd yàlla ya ñoon ña nga ña ngi koy wéyal ñu nit ñi nga xam ne ñoo yore wàllu xéewlu yi ñu nit ñi ngi koy doxal waaw noonu lañ koy doxalee ba fajar sëriñ bi ñaan boo ko defee joxee dig daje ba déwén incha allahu taala day mel ni liggéey bi nii lañ koy doxalee xamees na ko miinees na ko mbooloo mi daa mel ni xam nañ ni muy doxee ñu ci di ko doxal ànd ci ndigalu mel ni رأيت na ci ya nga xam ne su yonent bi salaa sallam daan na ko def nee nañ bu daan war jur bu daan war jur da da daan léemu fi mu ne yéeg oto rek jur booba fas moo xew wala giléem léegi oto moo ëpp donte am na ñuy war loolu ba léegi waaye da ko daan kàbbar ñetti yoon allahu akbaru allahu akbaru allahu akbar subhaana allazi saxara wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun maanaam li muy wund mooy booy yéeg gawar da nga koy léemu doog a yéeg ci turu yàlla kenn du yéeg ci luy daw rek toog te doo wax dara loolu yenent bi daaw ko def ah bu ko ci amee tegtal yu baax yoo xam ne lislaam bañu ko tam lool lu baax la waaye moom noonu la ko daan defee da daan wax sax buy tukki ne yow yàlla sunu boroom maa ngi lay ñaan ci sama tukki bii nga xam ne tukki jéeri la nga defal ma ci ragal yàlla ak mbaax maa ngi lay ñaan nga defal ma ci jëf juñ gërëm maa ngi lay ñaan nga yombalal ma tukki bi maa ngi la koy dénk di la ñaan bu soree nga nga nga gàttalal ma ko maa ngi lay ñaan nga wutal ma ay àndandoo yu baax yu rafet jikko maa ngi lay ñaan nga wuutu ma ci sama njaboot maa ngi lay ñaan tukki bi doon tukki bu am solo bu tonowu boo xam ne bu ñu fa jógee aajo yu bari day faju fi mu ne lii nii bari na kuy dem bitim réew di wuti dara wala muy jóge dëkkam di dem ndakaaru wala muy jóge ndakaaru dugg ci dëkk bi ñaan gi dong mën naa doon kiiraayam ak ak ak ak ak ñaanam goo xam ne bu ko defee mbooleem lu muy dabu ji di ko wuti dana sotti ci kàttanu suñ borom waaye loolu lu jege la waaye ñu bëri danañ ko jël dem fu bëree bari fu ne ñu dugg fa lu ne ñu wax ko dégg nga euh, joxe ci àll bi lu dul jeex te yooyu yëpp euh, sunu borom nag li nit ki mën a defal boppam da ko ko bàyyee am na ci loo xam ne yàlla jox na la kàttanu def ko ak xel mi dala koy bàyyee nga defal ko sa bopp yooyu yëpp nañ ko gëstu xam ko eh, di di di ko def bokk na ci yi nga xam ne yonent bi daan na ko def bu daan tukki da daan dénk njabootam yàlla danaan sama njaboot gi maa ngi koy dénk yàlla eh, yàlla ma ci yàlla wuutu ba ma ñëw loolu jarul xeeb képp koo xam ne yaa ngi génn lu mu gàtt gàtt loolu boo ko waxee mën naa aar sa njaboot dem ak dikk te dara du leen laal bokk na ci yi nga xam ne daan na ko def euh, euh, bu bu bu tukkee daawut tukki lang fa waaye da daan def bu aajoom fajoo mu dëpp ñibbisi loolu fi mu ne hadiya la njub la boo demee ci barab ba la fa wuti woon yàlla may la ko da bu mu tax nga bàyyi fa nga nekkoon da ngay dellu loolu tamit euh, ci yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def bokk na ci ëpp ci yim daan tukkee daal ñeenti xeetu tukki la tukki boobu mu tukki woon ngir gàddaay rawere lislaam tukki ngir jihaad ngir jihaad ci yoonu yàlla da ko daan def waaye li ëpp ci tukkeem umra ak xajj tamit da ko daan def mooy yonente bi bu ñu la laajoon ñaata xeetu tukki la tukki mooy ñeenti tukki yi rek la daan tukki benn mu tukki ngir rawale ji lislaam mooy ba mu jógee Makka dem Madina walla mu tukki ngir jihaad yi fi sabilillahi jóge fa mu dëkkoon ci madinal munawara dem badar ñu def camp ñu nekk ca camp ba am na camp yoo xam ne daan na am weer ak lu ko ëpp ñaari weer ba ñett ba ñeenti weer yoo xam ne ci àll bi lañuy nekk mu nekk ak sahabatul kiram yeneen tukki yi mooy bu omra jiwul day aji ndax mujj na dëkkatul makka waaye madina la dëkk li koy firndeel mooy bi mu uh, wuyu jee sunu boroom madinal mu na munawara lañ ko denc ci barabam ca néeg ba mu ne newoon عطر اللهم خبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم خبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم خبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم أعطر اللهم خبره الكريم بعرف سزي من صلاة وتسليم دي guddi yonent bi sallallahu alayhi wa di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér ba li nga naal ngir liggéeyal sa maam Cheikhul Khadim suñ boroom defal la ci lu kawe sa njort danga nga ànd koog taalibe yëpp taalibe yëpp ñëw nañu ñu ngi doon jéem ci ni ko sa maam ju baax ja digle woon te mooy tanzimuhu bi sunnati doon ci def suñ kem kàttan yàlla nañ ci dajeeg liñ ci digee te ànd koog yow Mbàkke ba faw rek taalibe yëpp ñëw nañu ñëpp jëf nañu yàlla nu sëriñ bi nangul lépp su ko defee niñ ko baaxee defee Cheikh Mamadou Bachir Faye mii nga xam ni moo nekk fii ci sama càmmoñ moom mooy yëkkati kàdduy sëriñ bi su ko defee ñu teewlu ko suñ noppee bu sëriñ bi ñaanee ñu may ko mu dugg ci biir kon dañuy jox kàddu gi sëñ Mouhamadou Bachir mu yëkkati kàdduy sëriñ bi sant mbooloo mi ñaanal leen yewwi leen su ko defee ñu dellu ci yitte yëpp beneen yoon aouzu waliya allah assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu yéen mbokk yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñépp ku ci ne ci turam a santam di ko def ci ndigalal sunu sëriñ a cheikh Mouhamadul Murtada ibni sëriñ Saalihu Mbàkke di leen di leen ndokkeel di leen ndokkeel ci xew-xew bu tedd bii mooy al mawlidu sharif di leen sant seen taxawaay ak seeni jëf yu yiw yu baax te loola yéen ko tàmbali ca màggal ga ba fim mu ne jokkale ko ba ci gàmmu gi booba ba léegi yéen a ngi taxawe yitte jooju diggante màggal ak gàmm dafa jege daanaka day lenn waaye boobu ba léegi sëriñ bi mi ngi gis seenu doxin ak seeni jëf sëriñ bi mi ngi sant bu baax mbokkam yi nga xam ne saa su ne fii lañuy dundale guddi gi ànd kook moom fii lañ koy duddande ànd kook moom ñëw ak seen yéene ak seeni jëf taxaw taxawaay bu solo bu rafet te ñenn ñi ci ñoom mënoon nañ koo defe seeni barab walla ñu defe ko ci yeneeni barab waaye ñu tànn pàkk bu teey bu làab bi fii ci ëttu Cheikh Mouhamadul Murtada di ko fi defe sëriñ bi loolu gis na ko mi ngi koy rafet lu ngir ak mbokk ak lislaam ak kóllëre loolu ngeen koy defee ànd kook moom ah ci biir loolu it mu am gan gu tedd goo xam ne ma nga jóge ba daara jolof xemmeem jëmmi sëriñ bi di ko xeeñtu ñëw fii ci pàkk bi ànd ak moom guddi gi ànd ak moom guddi gi dundale fi gàmmo gi moom bu ngeen ko seetloo mooy kii toog ci wetu sëriñ bi te féete ko wet gële mi ngi tudd a cheikh sharif mouhamadul amin haydara di ko am kóllëre ay mbokkam ak i baayam ak i maamam am kóllëre lool ak cheikhuna cheikhul xadim ndax sët la ci cheikh sidiya baaba mu féete fii daaru jolof ñëw xentu si li nekk fii ñëw ànd ak sëriñ bi guddi gi màggal kook moom loolu lu rëy la fi sëriñ bi mi ngi koy wàcce wàccuwaayam di ko dalal di ko tatagal di ko wax ne ko yaa ngi ci sa kër ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wanna cheikh euh, seet Sidiya Baba ak sëriñ tuuba dañoo amoon ay lu ñuy tudde ay rawaabit yoo xam ne islaamiya la li leen taqale woon di lislaam kese loola nag bu koy dundal moom ba yegg si fii ci guddi gu tedd gi loola lu dëgër la sëriñ bi gis na ko jàpp na ko kon cheikh wa cheikh yuhanniu bikum uh, bi munasabati hazihi leyla sëriñ bi it mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ay taalibe lañ nekk fi taxaw taxawaay bu am solo moo xam ñenn ñi ca fu ñu mën a féete ci kër gi ca social yaag communication baag culture yaag lépp rek kenn ku ci nekk sa sa taxawaay am na jëmm am na solo sëriñ bi mi ngi koy wàcce wàccuwaayam mi ngi koy wàcce wàccuwaayam kenn ku ci nekk mi ngi lay jox la nga ca yeyoo te du te lu tuuti ndax ni mu fonke doomu aadama ak ni mu fonke liggéey bu baax ak bu mucc ayib loolu kenn ku ci nekk mën na koo seedal boppam bala ñu ko wax ah li jëm nag ci lii nga xam ne moom la doon def tey muy gàmmo muy guddi gu màgg gu tedd am wàccu waayam ci biir lislaam li ko indi it mooy ki nga xam ne moo ci gane àdduna moo ko waral mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundal gi mbooleem boroom xam-xam yëpp daje nañ ci baaxaay bi ak li muy jëriñ doomu aadama waaye ñun suñ koy gëstu duñ sori dañuy daal di dem rek ci sunu tegtal yu njëkk mooy cheikhul xadim bu ñu demee ci jasbul xuloob rek lam fa wax yaakaar naa boo ko wàññee dina mat fukki bayit ak ñeent yoo xam ne lépp ci diggante dundal guddi gi la ak ak baaxaay yi ci nekk ak teraanga yi nga xam ne moom la ci dëxëñ moom la ci sunu boroom dëxëñ muy guddi goo xam ne bu bari tuyaaba ak yool gu làq ay yëkkatiku ci biir ak ci biti sëriñ bi dundal na ko njabootam tam ñu ngi koy dundal ba fi mu ne buñ ci jukkee benn bayit rek bi wax ne ixyaau mawlidil bashir yaxmil iyaala wa duyuur fiihi shifaun li sudur li kulli haadin yantami rek nga xam ne daanaka moo tëj bunt boobu di wax ci wàllu dundal guddi gi daanaka firndeel na lépp mooy dundal guddi gi kat guddi euh, Seydina Muhammad gii day kaaraange la ci njaboot kaaraange la ci ci ay ay ay barab ay kër day leeral dënn di ko saafara képp koo xam ne askanoo nga ci ci ci ci aji jub ji eh, war nga koo dundal rawatina nag ba mu koy tàmbali dane képp ku nekk ci bopp mbooloo maanaam warteef la ci yow nga ànd kook ñoom dundal ko kon ñun loola ñu ngi sant yàlla bu baax desuñu ci ginnaaw sëriñ bi ñu dimbali ba may ñu keppaar guñ mën a def loolu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon jullit bu ne war naa xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabiyul insaniyati la maanaam yonent la boo xam ne wàllu nite incarné na ko ba mu jeex wàllu yërmande yërmande incarné na ko ba mu jeex dundam gépp ay njàngale la ak i waare ak i kéemtaan rax ci dolli nag alxuraan ji nga xam ne moom la ñu indil nga xam ne moo tëj téere yi moom it mu tëj yonente yi loolu dong jaroon na wutal ko guddi di ko fàttaliku kon loolu am na cëslaay ci diine bu wér a wér looloo tax ñu koy def danga xam ne yonent bi tam liñ ci jàng bari na guddi gu mel nii boo fi ñëwee ba jóge fi lu mu gàtt-gàtt ci wàllu doxalin wàllu yar wàllu organise sa bopp ak sa mbir ak bañ xeeb sa bopp ak xam ne lenn lum tuuti tuuti mën naa mujj bu baax fu mucc ayib bu tegee ci yoon loolu lépp ay jëflante la yu rafet yoo xam ne mën nañ koo jàng ci guddi gi ak yi nga xam ne moo fi jib ci ay waxtaan ak yëpp nga xam ne daal guddi gu teey la yàlla sunu boroom tagg na ci yonente bi ci lépp tagge ko ci jikko yu rafetam yi mu yor jikko yu rafet yooyu nag la nit ñi war a gën a góor góorlu xam ne doomu aadama ku am gëdd la doomu aadama rek am na gëddë ba mu nekkaatee ci biir lislaam gën amati na ko mu bokkaat ci njabootu Cheikhul Khadim gën naa gën naa amati solo ndax desul ginnaaw ci dara ci biir lislaam kon loolu kenn ku ci nekk war na cee bay waaram lu méngoog lam ca tollool def ko kémtulay kàttanam ah euh, maanaam guddi nag dundal guddi gi fi ñun nii ñu koy defee euh, mooy jàng alxuraan tagg yonente bi jële ko ci téere yi nga xam ne moom lañu sunu sëriñ boobu bàyyil sëriñ Touba. radiallahu taala anhu julli ci yonente bi lu baree bari jàngat siira yonente bi daal di rafet njortu nag biñ ko àndeek sunu royukaay sunu sëriñ mi nga xam ne ñun ñëpp war nañoo maase ci taxawu ci lim bëgg ndax lu baax rek la bëgg lislaam rek la bëgg ak njub la bëgg jàppale ko ci loolu nga xam ne moom la namm ci ñi mu àndal ndax lu jafe ci jamono la te boo amee lu ñuy tuddee lu lu jafe ñëpp ñëpp bëgg ko am ko yonent bi dane woon sallallahu alayhi wa sallam fa innahu man yaish minkum fa sa yara ixtilaafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxalaf xulafai rachidin addu alayha bi nawajis àdduna bu doxee lu bari dana feeñ waaye boo amee lu wóor tam dëgër tam tam tam leer ci yow neen danga koy dugal ba ca dégg ya gën a sori nga téye ko foofa mu bañ laa rëcc loolu misaal la ci sunu digganteeg ki ñu sëriñ Touba booleel nañ ko fonk te déggal ko te jàppal ko te xam ne du yàq diine du yàq ak mbokk du yàq dara luy defal rek lay def loolu kenn ku nekk da cee war a dox kémtu lay kàttanam loolu nag ci tënk mooy jëmmi guddi gi rek mooy jikko yu rafet na ku nekk càmbar ay jikkoom gën koo rafetal gën koo muccal ayib ndax ñu mën koo siggil ndax moom kat siggil nañu ndax tege na ci foo xam ne boo koy xool doo juum macha allah yàlla na ko suñu borom gën a taxawu gën koo dëgëral ba may ko kàttan ba lim yéene namm ko naal ko lépp suñu borom teg ci loxo barke Cheikhul Khadim tiitar la ci ñun yàlla na ko yàlla barkeel te gën koo dëgëral li nga xam ne nag moom lañuy ñu mujjee ci kàddu yi mooy soññee gi nga xam ne naka jëkk sëriñ bi da ko daan def mooy lu jëm ci wàllu tool yi ndax ku ne bu ñu yegsee fii dañu xam ne liggéey bi ci tool yi cate na waaye niñ ko daan waxee rek noonu lañ koy baamoo ba tey mbokki taalibe yi nañu bàyyi xel ne léegi jumtukaayu jokkoo yi ak xamle mbir bari na am na kër gi it suñ boroom def na am na ay support yu fi nekk yoo xam ne ay yoon la yuñ mën a jàllalee eh, xibaar bu ko defee loolu moom du réer kenn fépp fu daara nekk bu loolee yegsee bu ci sëñ bi tëree tëralee lam cay tëral ak na mu ko bëggee ak na mu ko waxee dana yegg ci mbokku taalibe yëpp bu ko defee ñu def noonu kon ñu xam ne daal nañ ko bàyyi xel moom it ndax bu gàmmo weesoo rek tool yi ñoo ci sës te jege na te sës na rëkk kon nañ ko bàyyi xel déglu ci ndigal nag bañ cee doxee sunu sunu sunu ni mu ko bëggee rek waaye déglu ci ndigal fu mu ñu joxoñ rek foofu mooy fi doon fi gën ci ñun loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi digle ne nañ ko def waaye dama ko waxe ni ma ko kémtulay kàttanu fi ma mën a yem waaye kàddu yu rafet la daal yoo xam ne lépp sant taalibe yi la rek ci seen doxalin ak seen teewaay ak seen taxawaay bu baax a baax sant ñi mu bokkal nga xam ne fi ñu ko teg gis na ko sant mbokki jullit yi nga xam ne lislaam boole na leen te loolu doon njàlbeen doon li nga xam ne mooy moo jiitu lépp ndax bala ngaa woote woo lenn kat ci biir lislaam nga koy woote loolu sëriñ bi lépp lu ci ne xam na ko jàpp na ko bu dëgër a dëgër dina ko dundal kóllëre googu yi sa diggante ak moom loolu daanaka mooy kàddu yi ak lu jëm ci wàllu euh, tool yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax li ci des mooy ñaan gi loolu moom euh, dañ ko koy jox mu defal ñu ko te ñu xam ne it du caagi ne kenn ku ci nekk day mën a yegg si joxe loxo ndax xataayu jamono ji ñu xam ne it bu ñaanee loolu mooy ñaan gi ñëpp lu ko boole mooy mboole seen bu ko defee ñu mën a dellu ci yitte yi ba beneen jotaay boo xam ne moo ñu dajale jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah قلبي يخبتنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا وجد لنا زواج دين البائقة وانتفنا إداما والبائقة وبيننا وبهما الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا لنا وأهل أمرنا يا مصيبا بخير رد درنا الاستغفار أنت الباري وابلنا سرية تديم العمل الصالح يا قديم وابلنا سرية تديم العمل الصالح يا قديم اليمن والجسر خير سددي بغير زين فقد بالمدد هبا كل ذكر زين الهدي المالك المكرم المتهدي هذا نجا بما يديم غير سددي هذا سيد بالقران من ددي نجا بما يديم غير سددي هذا سيد بالقران من ددي نجا بما يديم غير سددي هذا سيد بالقران من ددي نجا بما يديم